Momath euh, Cissé maa ngi lay nuyu. maa lay fay. Momath Cissé nga nekk vice-président bu Ascosen euh, déjà ma lay laaj concertation yi nga xamante ne njiitu réew Sénégal lancé woon na ko boobaak léegi weesu na euh, benn semaine est-ce que évolution am na ci liggéey bi. waaw évolution am na ci liggéey bi mais mun naa wax ne résultat yi munuñ ko valider ko ndax commission yi mat na dix-neuf commission te onze commission yi rek ñoo jaara jaaragum en plein air onze commission yooyu joxe nañ ay recommandation joxe nañ ay résultats mais résultat yooyu définitive stabiliser guñ ko parce que boo ko xoolee ministère du commerce war na ci liggéey war na ko jox primature mu liggéey ci ba lañ koy yóbbu ci chef de l'état mu daal di ko valider loolu tax na ba xam ne mënuma ci avancer bu baax mais mun naa wax ne en tant que défenseur des consommateurs. li may wax toujours mooy que chef de l'État am na lu mu validé woon piste bi nga xam ne demoon nañ ci concertation yi mooy la le, le taux de dix pour cent bi nga xam ne moom lañ doon def ci huile brute bi nga xam ne moom la industriel yi war a doon doon fayeeku consommateur ba tax na concurrence wu loon ak huile raffinée importée loolu buñ ko dindee rek diwlin bi mën nañ ci am bénéfice boo xam ne dana baax ci consommateur bi te du gaañ opérateur euh, bu dee produit locaux yi mun naa wax ne agence de régulation de marché bu defee liggéeyam nga xam ne mooy importé bi ak local bi bu ñëwee ci marché bi toog un mois bala muy jeex bu boobaa prix yi dañ ko mën a maintenir à un prix raisonnable bu fekkee période tabaski korité nga xam ne demande bi dafay bari bu boobaa ministère du commerce bu jëlee arrêté dana tax spéculation bi dégg nga dana wàññeeku muy ay mesures yoo xam ne euh, luñ ma mën a mettre le en application te du am benn incident financier boo xam ne dinañ ko mën a euh, apprécier donc ah. loolu mm-hmm. euh, mun nañ ci wax loo xam ne mm-hmm. du dugg ci liggéey bi nga xam ne pareegul parce que liggéey bu pareegul boo ci waxee bu ëllëgee buñ ne la nga waxoon nekkul loolu xaw a dafay xaw a doy waar. Hmm. moo tax euh, nañ xaarandagum bu liggéey bi pare rek euh, ba ñu valider bu boobaa euh, dinañ xam lii lii la war a jar lii la wala lii mais li ñu wax lu leer la. Hmm. bu fekkee ne mën na wàcc na wàcc bu fekkee mënul wàcc nañ fexe ba bu yokk. mais mais est-ce que euh, Momar Cissé mën nañu wax parce que président daf ne euh, bi mu leen wooyee ca daf ne dans trois semaines bëgg na euh, sénégalais yëg ni dund gi wàññeeku na pratiquement benn semaine weesu na ñu ngi dugg ci ñaareelu semaine bi li si des bareetul est-ce que mën nga ñu wax waaw wala déet ni trois semaines yooyu bu jeexee est-ce que sénégalais au moins dinañ commencer sentir ne am na produit yu wàññeeku. ni nga xam ne moom la ñuy liggéeyee engagement bi ma sentir ministre du commerce def ko ragal naa ne ci ñaari semaines yi danañ ko mën a jox li nga xam ne moom lañ liggéey. Mhm. ndax une semaine bi wax dëgg yàlla nee na la fukki commission ak juróom-ñett yi bu taxu doon ak àllarba bi nga xam ne dafa am conseil des ministres liggéey bi day continuer donc bu paree war ko ci quinze jours yi war nañ mun a jébbal euh, yëf yi président de la république mais am na ci sax engagement boo xam ne mun nañ ko matérialiser te matérialiser nañ ko mooy numéro vert numéro vert bi nga xam ne da nga maam toogoon nañ trois ans yoo xam ne ñu ngi ko doon demandé te amuñu ko fi mu ne am nañu ko te numéro vert day tax yow consommateur bi boo gisee loo xam ne jaaduwul parce que lii nga xam ne moom la ñuy liggéeyee fi ñu toll nii bis boo xamee ne président validé na ko maanaam mooy acteurs yi ñoo nangu loolu ndax nee naa la importateur bi ba ci détaillant bi fàttewuñu kenn donc bu ñu demee ba valider ko dañ koy traduire en texte réglementaire bu boobaa application bi wax dëgg yàlla warul jafe donc ragal naa ne daal euh, buy yéex ci ministère du commerce ni ma gisee lancé bi mais nous sommes dans les temps. Euh, am na information buy défilé depuis quelque jours ñuy wax ni euh, janvier deux mille vingt trois ci la location bi di wàññeeku loolu da koy dëggal waa wala déet yéen ñi nekk ci biir liggéey bi. man mënuma ko dëggal parce que bokkuma woon ci commission loyer mais li ma mën a dëggal mooy que liggéey nañu liggéey bi stade primaire la nekk am na fu mu war a jaar. jaaragul foofu xamuñ ndax modification dana am wala du ci am fuite nag am na ndax liggéey bi ki la ko commandé comme jotagu ci moom moo waroon na xam résultat yi en premier mais comme fuite am na nit ñi di wax mais man li ma mën a wax mooy bokkuma woon ci commission boobu te xam naa ne fi mu ne étape primaire la nekk war na jaar euh, validation ministère du commerce bu fa jógee dem primature bu fa jógee dem ci président muy validation finale Euh, moom euh, Momar Cissé plutôt sax parce que yéen ñaa seen tur dafa xaw a en tout cas ah, man maay Saloum Saloum Pire bi man maa dëkk ñoom Bato. <laughs> moom kaw la ah, en fait est-ce que euh, Momar locataires yi fi ñu toll nii dañoo tiit parce que atum 2014 bi ñu voté loi bi pour wàññi prix luwaay bi dañu gis ne location dafa gën a cher locataires yi dañoo gën a sonn location dafa gën a jafe borom kër yi mayetuñ dara locataires yi. ñu bëri di wax ni sax a ah, nañ ko bàyyi nii mu nekk parce que ah, buñ ci indiwaatee coppite boo moytul ñun locataires yi ñoo siy jëlaa jëlaatee ah, lorange loolu loo si tontu est-ce que njiitu réew mi bàyyi loo ngeen ko xel loolu bu baax a baax. waaw euh, luñ siy tontu rek mooy bi ñuy def loi bi 2014 première année bi application yi baaxoon na mais toujours dafa am ñoo xam ne dañuy contourner. contournement bi nag mu indiwaat ñu indi woon ay recommandation yoo xam ne euh, wax dëgg yàlla xaw ma ndax président jotoon na ci wala jot ci mais léegi nag participation inclusive boobu nga xam ne bailleurs yi bokkuñ woon ci loi bi biñ koy def parce que commité bi bu ñu ne dañ ko defoon mu waroon continuer mais boobu temps premier ministre Mimi Touré la woon léegi bi Boun Abdallah ñëwee commission bi continué wul nag travaux yi ba nga xam ne bailleur bi def naan man kat mënuma ci mënuñ ma dogalal ci loo xam ne man maa ko def waaw mais bu yoon nag vraiment am na participation inclusive et am nañ yaakaar ne xëy la décision bi ci kii danañ ko mën a appliquer te ñëpp nangu ko parce que euh, wax dëgg yàlla bailleur yi représenté woon nañ Euh, njiitu réew mi doon na wax ni dañuy recruter mille contrôleurs euh, ci terrain bi euh, pour contrôler prix yi ainsi de suite est-ce que déjà contrôleurs yooyu ñu ngi ci terrain bi waaw wala déet. xalaatu guñ sax nañ ko lañ koy defee fi mu toll nii à ma connaissance. ba ñuy hmm. mën a nekk ci terrain bi. yéex na de. fi mu nekk ni stade de réflexion la ñu nekk naka lañ koy mettre en œuvre. Mhm. parce que président de la république bu waxee vision lay am bu ko defee. Euh, ministère bi nga xam ne moo war a chargé de l' mu mettre ko en œuvre mais idée la boo xam ne sen ñoo ko njëkkoon a wax à l'image des ASP que vu que ministère du commerce ressources humaines am dafa xawoon a limité ak logistique bi sax ñu ne leen ñu def les volontaires de la consommation milliers nag président jox na ko ministère du commerce mu war ko ñu ngi euh, ñaan mu xalaat ci association de consommateur ñu am ci wàllu bu takku pour que ñu mun leen accompagner parce que bu tikkee bu xamee ne am na ku koy xool te am na toujours koo xam ne dëkk na moom mun naa am euh, kooku bu defee liggéeyam euh, bu boobaa spéculation du am parce que toujours ñoom dañuy jéem a contourner li nga xam ne mooy la réglementation te duñ ci am benn impunité parce que bu bo personnel bi moo doy doon pour nekk sur la terrain Euh, Momar euh, Momar Cissé euh, déjà tamit ma lay laaj ci facture ndox yi nga xam ni cher na trop fi ñu toll nii consommateur yu bari ñu ngi jooy parce que facture yi Sen'Eau di indi seen kër su doublé wul triplé na wala mu daal di koy ëpp loolu seen lan la ci def est que bi ngeen demee tamit ci concertation bi signalé ngeen problème ndox boobu nga xam ni sénégalais yi ñu ngi koy dund depuis depuis l'arrivée sax de Sen'Eau. dëgg commission électricité bi mais yàgg nañ ko signaler te xam naa ne ña fa nekk aussi jël nañ ko en charge parce que association défense de consommateur bu ci nekk ce rôle mooy mu jël en charge les plaintes et les complaintes des consommateurs yi ñëw ci yow traité leen te loolu tax na ba bi au niveau de l'ASCOSEN bi ñu recevoir les plaintes et les complaintes def nañ ko ba demander que ñu auditer facturation bi Sen'Eau cabinet bi SONES tànn na ko mu ngi sur le terrain mu ngi rencontrer acteurs yi waroon na ñëw ci ñun mais li nga xam ne moom la commande président bi moo tax ba tey mënuñ leen recevoir mais àla kuli àll sa facture bu chere njaka la xool ndax yow amoo euh, fuite bu fekkee fuite bi amul euh, teg ci nga xool compteur bi bu fekkee compteur bi normal ñu daal di ko changer mais àla kuli ku nekk xamoon na ne factures yi na moo tax audit bi xañ na buy euh, bu pare dana am résultat bu mu war a joxe soit mu confirmer wala mu infirmer Euh, laaj bu mujj Momath Cissé euh, lan ngay tontu ñi naan Ascosen amul crédibilité euh, parce que Ascosen seen kuréel gi dafa jege lool état parce que gis nañ Momar Ndao président bi ni mu jege njiitu réew Sénégal di Macky Sall ba tax ñu bëri nee nañ Ascosen nekkalutu fi consommateur yi lan ngay tontu Momath Cissé si loolu. waaw li may tontu rek mooy nit ki li muy jugé nit mooy taxawaayam ndax. si mu taxawee am na objectivité wax na diggante moog yàlla wala waxu ko parce que dafa am loo xam ne bu fekkee gouvernement def na ko nga ne baax na bu ko defee opposition ne yow gouvernement nga àndal bu fekkee ne gouvernement la mu def baaxul waroo wax ne baax na danga nga war a wax ne bon na waaye proposition boo ne bon na nag da ngay teg proposition loolu mun nag loolu la ñu war a juger nit ci taxawaayam mais position bi mu jël conseiller la du conseiller spécial mais conseiller technique la te conseiller technique bu dee da nga adossé wu pour défendre les populations defe naa ne position bi dina tax nga mun a wax président mu déglu la te président itam tenir en compte ci li nga koy wax parce que mooy président mu yow défenseur de consommateur yéen a bokk objectif mooy protéger les population loolu rek la ñu nekkee position boobu loolu lañ fa nekkee mais nekkuñ dégg maam lu gouvernement bi euh, di soutenir ko waaye waaye euh, Ndao dafa jege trop njiitu réew mi di Macky déggoo la ma ne dama leen ne conseiller technique la. waaw te nekk na ko depuis Ablaye Wade. Mhm. mais biñ koy jàpp di ko tëj di ko di ko tëj di ko masse courant. Mhm. booba conseiller technique Ablaye Wade la woon bu fe bu euh, woon population bi amoon na lu mu jëndee saako ceeb mais défendre population moo tax ñu masse ko ba tëj ñun ñëpp ñu jàpp ñu loolu dañ koy fàtte. dëgg la kon Momar Cissé Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. may fàttali yow yaay vice-président bu ASCOSEN.